dara. may lay fay. ñu dem ci li gën a fës. jàppal ne ponk bu njëkk dafa aju ci jëm ci wàllug euh, euh, njëg yi nga xam ne daan nañu koy wàññi rawatina euh, li jëm ci wàllug mburu mi di ndogal gu bawoo ca nguur ga mu doon sàpp ndogal boo xam ne tey jile lañu ko waroon tàmbali di doxal waaye nag jàppal ne ñenn ci boulanger yi daal topp ñu bi lépp ndogal ñu jàpp ne gouvernement bi def ci yàkkamti waaye nag ku ci mel ni que docteur Abdourahmane Eh, di ci woo rek eh, boulanger yi ngir ñu topp ndogal gilee ngir ñu mën a wàññi njoguk eh, mburu mi donc beneen woo xam ne itam dañ koy daal di yaatal ci biir jotaay xibaar dafa ñaal proposition de loi mi nga xam ne député bile di Bara Dolly moo ko jébbal pencum ndaw réew mi ni ki tey jii di projet de loi boo xam ne dafay wax rek ci di jëm ci wàllu borom ñaari tur yi député yi député bile di ci ñaax rek ñuy diisal wala gën a diisal daan yi nga xam ne dañ koy teg borom ñaari tur yi tëj leen ñaari atu kaso boole ci ci itam euh, pamande bu tollu diggante euh, benn jàpp juróom million ci franc CFA ba tey ci la jotaay xibaar dinañu wax ci bésu tey jii di bés boo xam ne dañ ko daal di jagleel euh, soxna si nga xam ne dañoo ñàkk seen borom kër yi waaye itam ay tuutànk yoo xam ne euh, dañoo ñàkk seen ay wayjur fii ci réewum Sénégal nag kuréel bi boot ñoom ñi le euh, dañoo daal di rek profité ci journée bi di ñaax gouvernement bi mu jàppale leen rawatina ci li jëm ci wàllug dëkkuwaay waaye itam ci wàllug paj mi mbokk yi li moo fi gën a fës soo leen taxiloo tuuti ñu ñëwaat si yaatal ji. dal leen nag jàmm mbokk yi ñu wax uh, ci njëgu leen ci dund bi nga xamante ni daal nañu koy wàññi niki ki uh, tey la jëmmal dogal gi mu mel ni daal uh, kilo mburu léegi yóbbu nañ ko ci fanweer loolee boulanger yi nee nañ arrangé wu leen da leen i gaañ mën nañoo dem sax ba wàññi li mu mburu bi ñuy defar wala sax dàq ci ñi ci ñuy liggéeyal. bu ñu sukkandikoo ci euh, client yi njëg yi nga xam ne gouvernement bi xamaloon nañu ko ci fan yi ñu génn daan nañ koy wàññi te mu ñeel euh, ceeb bi suukar si ba ci diwlin bi waaye itam ba ci euh, prix bi daal ba ci mburu bi daal njëg yi wàññiwuñ ci dara ñu ànd ci ak Oumar Thiam ceeb reportage. ndaxam wàññite njëg bi nga xamante ne nag moo soxal produit de première consommation yi jëmmal nañ ko am déet ca boobe laajte nag. ñenn ñi tontu waaw. burul xati këtam jëndi laaj femme bi fay liggéey mu ne ma wàññi nañ ko ñoom cent cinquante diwlin waa le bidon au lieu de vingt mille moi je l'ai acheté à dix-sept cinq cent. ba ma jëndee ci jaaykat yi ñoom ñoo jëlaat delloo ma après nag justement ci laaleen laaj lan la ñu ne ma affaire ko wàññi. ñeneen ñi ne déet.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 mais jeunes bu ñu wàccee sur le marché liggéey ko pendant deux mois trois mois par force dañuy exécuter wàññi bi. ñu ngi leen di ñaax ngir rek ñu daal leen di topp ci dogal googu naa métti na ci ñoom waaye nag ñu fexee rek ba askan wi gis ci seen bopp.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 Moussa Mané kuréel bi ëmb boutique yi jaay détail fii ci Sénégal ñoom nag nee nañ du ca dal fas yéene benn yoon topp dogal yoo nga xamante ni kon nguur gi daat na koy jël. ñoom daal li ñuy xamle mu ne mu di li liñ ci ñàkk daal moo bari moo tax mënuñu topp bi lépp ndogal ñu ànd ci ak nguurub Sénégal ak jaaykatu boutique yi bokkuñu gis-gis ci wàññi gi ñu yëgle ne dinañu ko amal ci duutiir bi suukar bu mokk bi ceebu mbay mi farine de blé bi mburu bi. ak sax ciment bi ndax ñoom détaillant yooyu ne mënaguñoo tënku ci mesures yi gouvernement bi jël loolee nag neexul benn yoon ci jiite boutiquier détaillant ci Sénégal wërngal këpp. ñëpp ñu demoon ci concertation yi gis nañu ñett am na wax yu fa souligné benn boo xoolee ki jiite CSS moom bi ñu ko laajee dafa ne suukar bi normalement la war a jar kon kooku waxtaan bi ñu war a waxtaan ak moom dafa des meunier yi bi ñu leen laajee dañoo wax ni ñoom dañoo soxla woon ñu subventionné leen te ñoom nee nañu 4000 leen di subventionné kon nag foofu waxtaan dafa des donc nag ñun moom ala kulli xaal ñun dañuy toog di xaar rek. moo ne day boobu lay wàññite ni tey ji altine yem ak ñeent fukki fan ak ñeent ci weer bii ñu ne lañu ko waroon jëmmal waaye njiitu ABDS bi jàpp na ne nguur gi dafa yàkkam ci lool. bu doonul naxaat mooy engagement loo xamante ne attanoo ko mooy mooy man man mii maa engage instant yi nag tafaatin dañoo digg askan wi loo xamante ne bëgg nañ koo def. waaye fi ñu bëgg jaar foofu du bunt bi. lu ñeel huile raffinée bi bouteille bi mu ngi jar ñatt téeméer riz bi jamono ji détail bi juróom benn fukk ak ñatt dërëm. lañu koy jaayee kilo bi lu ñeel suukar bu mokk bi kilo bi mu ngi ci téeméer ak ñaar fukk te mu ngi doon jaar téeméer ak fanweer njëgu mburu bi wàññi nañu ko jëlee ko ci fanweer ak juróom yóbbu ko ci fanweer muy wàññi te juróomi dërëm saako ciment bi nag jamono ji mu ngi ci juróom-ñett téeméer ak fukki dërëm bu fekkee ne nag aju jëfandikukat yi lu ni mel yombalal na leen ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàll wi ñoom lu ni mel ëlëm na leen meññe yi ñoom ñooñee nga xamante ni ñooy euh, defar farine si nee nañ daal dañoo fas yéene banque seen loxo ci lu jëm ci njaay moomee ndax nag nee nañ dañoo woroo ak nguur gi ci jëm ci wàññi njëgu farine si. nee nañu daal seen xel dalul li ko waral nag nee nañu amul benn amuñu benn garanti goo xam ne kon euh, nguur ga jox na joxe na ko ngir ñu wàññi juróom-ñetti téeméer di quatre mille ci saaku farine. L'ensemble des meuniers a mené une action concertée. kuréelu meññee yi ñoom dañu déggoo ci suba si ngir dakkal bépp njaayum farine ci biir réew mi ndax nag d'accorduñu ak nguur gi donte sax ñu ngi rafetlu jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def ak ngir wàññi farine bi ci lu toll ci quinze mille deux cent francs waaye nag ñun nag ay industriel lañ te nag nguur gi joxuñu benn garantie que mu doon lu ñu bind wala sax ci lu ñu wax ci li ñeel quatre mille francs yi nga xam ne ndar nañ ko wàññi ci saagu farine bu ne ñuy laajte quatre mille francs yooyee kan moo ko nar a xam yi nga xam ne xas nañ ko ba jënd fay ay taxe de douane yooyee naka lañ leen di def nit ñi war nañu xam ne nguur gi li mu calculer ci njëgu blé bi mu ngi toll ci 292 euros waaye nag blé bi fi mu toll nii mu ngi jar lu ëpp 300 euros. Le gouvernement a fait un calcul avec un cours de blé à ba tey euh, ci mbir moom la ñuy des euh, docteur Abdourahmane Kébé moom nag euh, mi ngi rafetlu dogal gi nguur gi jël wàññi yenn ci njëgu dund gi nee na loolu nag luy jëmale Sénégal kanam la ndax dina tax askan wi gis ci seen bopp bu baax. moom nag yemu ca ndax nag daan nay ñaax itam ñi di ambulancier yi ñu topp ndogal gi bawoo ca gouvernement ba ngir ñu mën a wàññi njëg yi. d'abord rafetlu bu baax a baax mesures yi nga xam ni. gouvernement bu bees bi jël na ko pour wane ni li muy wax dafay méngoog li muy jëf. wàññi nañu ciment yi du moins wàññi nañu euh, euh, ceeb bi wàññi nañu dawlin bi te yeneen doon si topp euh, loolu yëpp waxuñu si mais affaire mburu mi rek la ñu wax. donc ñoom dañu war xam ni aussi par patriotisme dañu war participer faciliter autorité si lu ñuy def bu ñu xool rek par égoïsme maanaam xool seen bopp. nii suñ ko defee liñ daan am si bénéfice dafay wàññeeku mais dañ naan non non non dañ ko war def pour mu réussir parce que même su fekkente ne suñu bénéfice wàññeeku na population bi yëpp daan ci gis seen bopp. ñu wax euh, ci ciment bi bi ñu waxee na daal dinañu wàññi taxes yi jëm ci euh, loole ba léegi kon ñi nga xamante ni ñoo nekk ci marché bi nee nañ daal dañuy dund ay jafe-jafe yu métti kii di Ousmane Mbaye directeur général bu cimenterie Dangote moo ko xamle.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 consommateurs puissent acheter à ce nouveau prix. Mais pour le moment, il faudra savoir que personne ne peut ñu tëj rap boobu lay xët euh, wax euh, ci député Bara Dolly mi nga xamante ni ki tey ci suba daal na dem ca pencum ndaw réew ma yóbbu fa ab euh, proposition de loi boo xamante ni daal day soppi alinéa 3 bu article 319 bu code pénal bu Sénégal yi nga xamante ni kon lum ci jublu mooy ñu teengal daan ñu jëm ci borom ñaari tur li tax mu def euh, boobu lépp euh, proposition de loi député bi dafa jàpp ne rek mbirum borom jaa euh, mbirum borom ñaari tur yi fii ci réewum Sénégal mu ngi bëgg a bëri kon mu jàpp ne dañoo war a gën a diisal daan yi nga xam ne dañu ko war a teg dem kon ba ñaari fukki at teg ci itam ñu teg leen ab alamaan guy toll ci benn jàpp juróom million ci suñu koppar. coowal mbirum góor jigéen teeraat na ci pencum ndaw réew mi.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 Mamadou Kanté foofu la ñuy des ca pencum ndaw réew ma wax ci jëwriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko mi nga xamante ne boobaak léegi ñu ngi ko fay xaar ngir mu waxtaan ak askan wi ci ñu fas yéene doxalee ak li ñu ko dénk di ko wax déclaration de politique générale daanaka sax lañu ko àppaloon daan na koy weesoo. ku muyul kon boobu lépp exercice euh, du yomb ci moom Elimane Diourine ya li ko waral nag mu di ku jëga euh, moo fay ëppale ay député daanaka léeg mu mat ñetti weer boobu ba léegi bu ñu tabee Ousmane Sonko premier ministre amagul benn demande ngir def déclaration politique générale déclaration politique général boo xamante ni premier ministre yàgg na ko def laaj bi nag moom mooy lan moo tax léeg ñu dugg ci ñetti weer Ousmane Sonko waxagul wala defagul li nga xamante ni moo di li mu fa yéene def jàkkaarloog député yi explication yi nag ñaar la benn bi droit lal ko beneen bi di politique. bu njëkk bi moom moo di article 98 ci loi wu 2002 tënk règlement intérieur assemblée nationale eh, lii wax déclaration politique générale premier ministre war ko def mu ngi dugg ci ñetti weer bu ñu tegee gouvernement assemblée nationale ñu war ko informer ci juróom-ñetti fànn wante loolu am nay jafe-jafe ndax a 2019 dindi gi ñu fi dindi woon poste premier ministre bi ñu koy delloowaat eh, disposition boobu nekk ci règlement intérieur bi kenn dugalu ko woon loolu ñu yokk ni fi mu ne nii ki nga xamante ni mooy saisir assemblée nationale moo di di président de la république wala sax premier ministre Ousmane Sonko article 85 tënk ko te saa yu ko neexee lay doon. beneen explication bi lalu ci wàllu politique. assemblée nationale jamono ji nekk ci kujje gi ñoo fa ëpp beneen la ndax Ousmane Sonko dafa bëgg am temps bàyyi ba ñu di sudur assemblée nationale bu septembre 2024 weesoo mu mën a majorité bu koy liggéeyal député opposition bi lii la wax ñetti weer yi moom kenn mënatu ko respecté gisuma tamit lu tax ñu koy respecté su fekkee premier ministre deful dara ñun dañuy déposer recours fële ci conseil constitutionnel Ousmane Sonko war a janoog député yi janoog tamit coow yi nga xamante ni moo ko wër 30 juin bu weesoo dañuy dugg ci beneen session ci biir assemblée nationale beneen session bu nga xamante ni day ubbi yeneen bunt lu ci mel ni motion de censure te bu boobaa gouvernement bi mën na daanu ñu egg si ci chronique Bassi moom si Albert di waxtaan ak ñun ci euh, politique nga xamante ni ci nguuru Bassirou Diomaye fay dañ ko nar a tëggaat mu mel ni ponk la bu am solo boo xamante ni ñoom ñooñee soxal na leen mu mel ni daal laataa ñuy jëm ci élection législative yi nañ ko amal ak sax bu ñu rombee yooyu la élection waaye nag ci gis-gisam la ñu a tëggaat ci guddi gi moo nar gën a métti li yees li nar a am ci euh, mbiruma langue politique ba maanaam recomposition de euh, l'opposition euh, ku mooy wóol coow li nga xam ne daan nañ koy nemmeeku diggante responsable yu APR waaye itam ca coalition Benno Bokk Yaakaar dina tax kon ba ku jëga rawatina coalition Benno Bokk Yaakaar tas si gis-gisu Mamadou Sy APR ay coppite dinañu am ci champ politique bi nu mu taxawee jamono ji loolu sax daanaka mi ngi dessiné wu te liy feeñ mooy ñaari kan benn bi mooy ñi farak nguur gi ak beneen bi nga xam ne ñoo farak kujje gi Pastef nag ak yenn parti yi nga xam ne ñoom la àndal ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy dawal nguur gu bees bi di ko doxal ñoom ñooy noyau dur maanaam ñoom ñoo téye doxalinu nguur gi fii ak mandat président Bassirou Diomaye Faye waaye nag bu ñuy xool ci côté kujje gi amul benn parti boo xam ne bokk nga ci kujje gi te nga mën a wax ne man maa mën a boot yeneen parti yëpp yi ne si kujje gi coalition Benno Bokk Yaakaar li ñu gis moo di ne diiru fukki at ak ñaar ñoom gouverner nañ jiital APR waaye coalition Benno fi mu toll nii dafa néewee doole si élection présidentielle mars 2024 leadership bi nga xam ne APR daf ko amoon ci biir Benno fi mu toll nii nañu xaar mu am ay xiiro ak ay fantasiro ndax ku nekk da ngay bëgg di positionné wu ndax si biir benno socialiste yi progressiste yi ñoom ñëpp kenn du bëgg a dellu ginnaaw ku ne da bëgg taxaw gën a fës yeneen pàcc nag yi ne si kujje gi ñoom fi ñu toll nii ñenn ñi sax xamuñu ndax nguur gi lañ gën a jege wala kujje gi ñenn ñi sax daanaka gis nañu si élection yi dañu nekkoon ay candidat ber seen daara bopp ñoom ñooñee sax mun nañu séntu ne ñoom seen bopp candidat yooyu bokkoon ci kujje gi te léegi seen taxawaay kenn xamul ndax nguur gi la gën a jege am déet ñoom mun nañu booloo sax ñoom def seen benn say boo xam ne du bokk ak waa Bennoo wala yeneen parti yi ci bokkoon élection tabb député yii di ñëw nag doon na pàcc bu am solo bu nara baatarawaat carte gi ci wàllum politique fii ci Sénégal waaye nañu bàyyi xel ne transhumance ñiy jóge ci ay parti wala jóge ci kujje gi dem ci nguur gi moom mun na soppi lu bëri ci xaar kanamu politique bi nga xam ne ñu ngi koy séentu. ñu wax euh, ci conseil national bu patronat bu Sénégal ni ki tey lañ doon dajeek euh, taskatu xibaar yi ngir fësal lu jëm ci ay ndaje yu ñuy waajal muy assise de l'entreprise ñu fas yéene ko amal ci ñaax fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin waxtaan nañu ak wi ci niñ ci fas yéene doxee. partenariat public privé loolee di ponk boo xam ne moom la ñuy tàbb ci atum ren jile lañ fa nar a waxtaanee bokk na ci di jëm ci wàllu contenu local maanaam ay. Euh,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 Ousmane Ba ñu wax euh, ci bés bu ñu jagleel ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seeni jëkkër ak ñi ñàkk seeni i wayjur ni ki démb lañ ko doon màggal fii ci senegal kuréel bi euh, jàppale ñooñee ñoom it daal nañu koy màggal bu baax ñu daal di ci porox ndool nag ñaax kilifa yi ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañuy faral di jànkonteel ñoom sax daal nañuy àddu ci ñenn ci jafe-jafe kon ñi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel bokk na ci li jëm ci wàllug paj mi waaye itam ci wàllug dëkkuwaay ñu ànd ci ak Bakary Cissé ci reportage. l'association nationale des veuves et orphelins du Sénégal daal dina célébrer ce 23 juin bis bi nga xamante ne dañ ko jagleel veuves yi ak orphelins yi mu nekk occasion pour association bi mu lancer. li nga xamante ne moo nekk ci xolam. mais amuñu xaalis boobu amuñu kenn faale ñu kenn toppatoo wuñu te dafa yàgg ah dafa yàgg loolu nag pour ñoom ñun xamul dañu ragal les portes sont toujours dugal du am réponse mais ñun xamuñu lan la comme ñun ay ay sorcières la xaw ma lu mu dem. association bi nag di tàllal loxo nguur ki ndax mu leen jàppale. ñuy lancer un appel. di wax Sonko ay waay nañ ñu jàppale la ñu ñu délaissé macha allah ba gis la li am nii nañ ñu jàppale. nañu jàppale ndax tamit nañu xam ne suñu suñu seen waajur lañu seen bàjjen lañu seen umpaañ seen ma seen leneen ak leneen ak leneen nañu jàppale. nañu jàppale ñu loolu lañu bëgg bu yóbbu ñu bañ ñu jox un franc mais nañu déglu nañu déglu parce que da nga am crédit kër boo xam ne dafa yàgg. dafa yàgg il faut ñu il faut ñu mais kër ba suñoo déglu. at bu nekk ci 23 juin ñuy màggal depuis 2013 journée internationale de la veuve et de l'orphelin Sénégal nag mu nekk ñetteelu réew bu koy màggal gannaaw Gabon ak Congo bi ñu sukkandikoo ci kàddu présidente nationale de veuves et orphelins du Sénégal di ko jaajëfal moom si Cissé teewal ñu ca banlieue bu ndakaaroo mbokk yi fi la ñu yem ci la jotaayu xibaar di leen jaajëfal bu baax ci seen teewlu ak seen kóolute di ko may am rek ca daan fekk ak yow. di la si baax a baax soxna Germaine Anastasie Diouf. ñu ngi noonu ci kanam la xibaar yi di dellu si bu juróom-ñetti waxtu jotee ci kàllaamay nasaraan ma di ci feggoog Tabara Diop léegi léegi mu aw Ndiaye ngeen àndal ak ganu 7TV soir ñu fas yéene ci waxtaanee xëy ndaw ñi way leen di ñu seetaan.